waaw kon uh, yéen ko gisandoo ñu ngi préparé ni ñu koy waxatee suñu bi waa Falen waaw yéen a ngi ko gisandoo loolu mooy buy bi ñu ngeen gis noonu mooy bisaab bi comme ni ñuy defar nii waaw di leen wax naan kon bi ci kanam rek affaire du dama waaw. nga maa nekk benn bi banyak orang nih. Banyak dua nih.